RFM matin 7 h suñu gan Abdou Mbow salaamaaleykum. maaleykum salaam euh, Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu sénégalais sénégalais yëpp di nuyu aussi Georges bi nga xamante ne ni moom laa war a seqal waxtaan bi. mu ngoog euh, vice président nga ca assemblée nationale. mi waajal euh, aljuma ndaje jëm ci coowal 94 milliards yi ñu ne euh, daal indi na coow ci réew mi ndax Ousmane Sonko njiital parti politique PASTEF moo ci tuumaal euh, Mamour Diallo nekkoon directeur général des domaines ne ak luubal da caa am ngeen sancoon commission d' enquête commission d' bi sax defoon na conférence de presse seetal Mamour Diallo wekk lépp Ousmane Sonko ngeen fas yéene caa daje. Euh, laata ñu lay euh, sax laaj euh, ndaje moom lu mu Ousmane Sonko njëkk na wax ni daal seen pexe yëpp fi ñu toll nii mooy xañ ko liberté dugal ko ci kaso bi xañ ko ay yëngu-yëngu politique ak ay mébétu politique am. waa jërëjëf Babacar xam nga dafa am loo xam ne rek foog ñu leeral ko mais li nga wax léegi rek. jàpp naa ne lu ci bari war na ko mën a tënk mooy danga ne Ousmane Sonko moo tuumaal ki nga xamante ni mooy Mamour Diallo xam nga loolu nag c'est une affaire strictement privée mais bi mu coow lu jógee ba ñu xam ne ci wàllu mbiru Sénégal la euh, Assemblée nationale comme ni nga xamante ne nii moom noonu la war a def mooy toogal askan wi mu ibbi ci li ñuy woowee commission d'enquête maanaam commission boo xam ne daf ci indi ay leeral sàkku ci ay leeral waaye xam nga bu usmaan Ousmane ko jógee daan ne dañ koo bëgg a tëjëk bëgg koo faagaagal jàpp naa ne loolu e, li muy wane rek moom mooy moom ci boppam e, li muy ci wundu moom mooy lëndëmal xelu sénégalais yi wala def victimisation maanaam fexe li fexe e, xool sénégalais yi nan lañ ko mën a yërëme wala ñu Euh, apitoyé sur son sort mais dama bëggoon rek leeral benn mbir xam nga article 48 bu règlement intérieur bu assemblée nationale dafa leer parce que daf ne l'assemblée peut par une résolution créer des commissions d'enquête les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée nationale xam nga loolu dafa leer Assemblée nationale du tribunal assemblée nationale du fu ñuy jugé nit. assemblée nationale nekkul xam nga am na tuuti contradiction ci say kàddu boo nee affaire privée ba noppi. assemblée nationale euh, samp ci commission d' enquête euh, parlementaire comme déggoo ma dama ne. dafa tuumaal nit mu nekk affaire privée waaye comme affaire bi dafa nekk ci wàllu deniers publics am ay coow yu mu indi dégg nga bu baax loolu laa wax. assemblée nationale dafa toogal askan wi bi coow lu jugee ci la ñu ibbi commission d' enquête loolu laa wax te li ma ci wax dafa leer mais tuumaal bi laa la wax. bu waxee ne dañ ko bëgg a yooyu loolu. ki Ousmane Sonko di joxoñ seen farandoo la ci wàllu politique itam. waaw déggoo li ma la wax bu dee suñu farandoo dafa nekkoon directeur de domaines domaine nag moom Sénégal gépp ñoo ko moom ci wàllu suuf la te wax la joo xamante ni dafa jógoon te wax ji bi mu jógee comme ni ma la ko waxee commission d'enquête dafay indi ay leerlu ci ay mbir yoo xamante ni jóg na te euh, euh, règlement intérieur bu assemblée national dafa wax ne bu ñu ibbee ab commission d'enquête ci benn mbir leen loo xamante ni war nañ ci mën a wax ci wàllu justice comme que par exemple bu ñu ibbee benn commission d'enquête euh, wala justice tàmbali liggéey ci commission euh, ci mbir yooyu rek commission d'enquête bi dafay arrêté beneen mbir bi moom mooy euh, commission d'enquête parlementaire parce que bëggoon naa aussi leeral benn mbir balaa ñuy sori ci waxtaan bi parce que gis naa dans la presse ñu ne la presse indésirable loolu nag lois bi la parce que boo xoolee article 48 dernière phrase bi dañ ne les délibérations des commission d'enquête se déroulent à wi clos maanaam loolu loi bi moom moo ko permettre te loolu du léegi la commencé parce que boo xee xoolee dernier alinéa. balaa may bàyyi Georges xam nga itam. Mhm. Euh, cohérence dafa baax. ci doxalin rawat na ñu la dénkee yii ñu leen dénk. mënoon mhm. ni à ba noppi commission d' enquête bi ba mu paree ab liggéeyam woo journaliste def conférence de presse wax la mu liggéey tënk euh, la mu tënk ci kayitam siiwal ko ba noppi wëlbatikuwaat maanaam la mu war loolu mu defoon conférence de presse sax euh, am na ñu jotoon wax ni daa jaaduwut. àndul ak euh, sarti mi. non kon euh, déglu xam nga conférence de presse bi dafa doon wax li nga xamante ni moom mooy jeexitu commission d' enquête bi parce que règlement intérieur bi toujours ci article quarante huit dafa wax ne commission d' enquête bi bu déposé rapport am ci taabalu président assemblée nationale liggéeyam jeex na. ñu def conférence de presse mais divulgué wuñu li nga xamante ni mooy këyit ak rapport bi li mu wax. Ah. parce waaye wax nañ euh, de façon de façon résumée que amul luubal bi nga xamante ne am na ci 94 milliards ñu wax. non non attends attends attends xam nga dafa am loo xamante ni aussi il faut ñu leeral ko parce que dafa am question boo xam ne man maa ngi woon comme Sénégal yëpp déglu nañ ko mun ngeen a am aussi cassette yi journaliste bi est-ce que am na ay luubal ñu ne luubal yooyu amu ci je me rappelle. mais loolu loolu non déglu ma non non non. loolu lañ doon gëstu non attends attends attends parce parlementaire bi dafa am rapport am ay pièces à conviction am la nga xamante ni moom mooy lii ñu ñii ñu auditionné rapport bi boo xoolee lu volumineux la te loolu balaa ñu koy publier une partie du rapport wala rapport bi yëpp. il faut que ñu am benn vote spécial boo xamante ni dañ koy def pour décider ci loolu loolu àgguñ ci bis buñ ci àggee je pense que li nga xamante ni moom lañ ci war a def. mais mais li may bëgg a wax rek mooy. liggéey liggéey ba pare. Hmm. ñuy xool ndax am na luubal amut luubal. ngeen tenir ab conférence de presse ñu laaj leen est-ce que am na détournement ngeen naan du détournement loolu mu ngi ci biir rapport bi. non non attends non ndax njiit laa ko wax. non déggoo la wax xam nga nee naa la rapport bi loolu. question la bu président ba répété mais en tout cas man mi nga xam ne député laa nekk ma woon certes ci commission d' enquête parlementaire bi mais xam naa ne rapport bi publier guñ ko publier guñ ci aussi une partie te loolu balaa ñu koy def assemblée nationale mooy réunir ñu am vote spécial ñu doog ko ci def loolu mooy li nga xamante ni tey jii war ko mën a wax ci commission d' enquête parlementaire ba beneen mbir bi moom mooy. ma ne rapport bi xam nañ li ci nekk. non non commission ba siiwal na ko ci conférence de presse seetal nañ. Mamour Diallo rapport bi kenn xamul lu ci nekk encore une fois de plus loolu aussi il faut que ça soit clair parce que divulgué wuñu fenn une partie du rapport ou le rapport ça aussi il faut que ça soit clair. il faut teg tontug njiital commission ba ñu laaj ko ci rapport ba. mu wa mu tontu. a déggoo li ma la loolu bis bu ñëwee fii. yan propos propos yooyu fan lañ koy teg déggoo li ma la moom bu ñëwee fii. mooy moom mooy le président de la commission d'enquête dina mais man li ma la mën a wax mooy rapport damay ragal ni conférence de presse bi fekk la ci réew mi non non attends non non du bi moom c'est devenu un monde nekk ci àdduna parce que fii RFM mi ñu ngi ñuy déglu ba euh, fépp foo dem ci àdduna bi ñu ngi ñuy déglu donc loolu jàpp naa ne du ñàkk fekke wala ñàkk euh, wala fekkee mais li am ba des mooy le 11 ci la ñuy réunir pour xam exactement est-ce que dinañ divulguer le rapport une partie du rapport sànq ne nga bu commission bi euh, dooree liggéeyam yoon waratu caa laal. yoon itam Ousmane Sonko eggee woon na leen mbirum 94 milliards yi. waaw xam nga aussi euh, commission d'enquête su paree dafay déposer rapport am. mais avant loolu yëpp la la saisir justice. nee na mais xam nga aussi ñun assemblée nationale loolu rek laay wax parce que justice ni muy doxee noonu lay doxee. assemblée nationale li muy doxee noonu lay doxee xam nga fii ñun ñëpp gis nañ justice ibi benn enquête boo xamante ni même bu dul 94 milliards wala ci yeneen ak yeneen ak yeneen mais assemblée nationale bu fekkee ne barki demb bi ñu déggee Ousmane Sonko lan la wax moom dafa ne dañuy commencer. Euh, liquidation boo xam ne assemblée nationale lay commencé moi je pense que aussi il faut que sénégalais yi xam li nga xamante ni mooy rôle assemblée nationale assemblée nationale day légiférer du tribunal mënul tëj kenn mënul accuser kenn ça aussi il faut que ça soit clair li nga xamante ni moo am ba des mooy Ousmane Sonko moom moo wax devant les Sénégalais. loolu boo ko waxee du 100 pour ndax assemblée am na ci lu def lu ñu ay mise en accusation. tubaab ngay wax du jugé wul tëjul loolu ministre la boo xamante ne wala premier ministre loi bi moom moo ko tëralee noonu mais mise en accusation concerné wul Sonko. donc waxuma ni ko dama ni non non déet dama li ngay wax itam du. 100 pour cent ma ne la dama assemblée nationale du tribunal du juge du tëj loolu kay man maa la ko wax te loolu. mënoo ko ku ne xam na ne yéen ngi lay naan affaire privée la ak ñoom seen waaye seeni i pexe politique yàgg ngeen ko def ci seen assemblée. xam nga di sàkkal nga yaa ngi changé fusil d'épaule li ma la wax mënoo koo dindi Babacar assemblée nationale du tëj. du tribunal du juge loolu maa la ko wax tey te mënoo ko dindi waaw assemblée mën naa mën naa xàll yoonu tëj kenn mën naa xàll yoonu tëj kenn waaye du kii nga xamante ni moom moo wax ne moom moo porté plainte moom moo wax ne moo accusé doomu aadama benn nit moom moo wax ne ba àdduna di tukki kenn du yóbbu mbir mi justice donc tey bu taxawee naan dañ koy liquider c'est parce que tey mi ngi joué à la victimisation te loolu sénégalais du victimisation xëy na peut-être ndax def ngeen ko Karim Wade def ko Khalifa Sall kay. waa néew déggoo li ma la xam nga aussi euh, ñooñu sax mën naa ne amu ci kenn ku ñu accusé mais moom moo accusé fa ban àdduna Babacar nga gis nit xëy suba teel daan ne diw sàcc na 94 milliards ba pare nga ne man la ma waxoon kat ci lañ bëgg a utiliser pour tëj ma xanaa yow la nga waxoon wérul xanaa la nga waxoon leerul xanaa la nga waxoon dafa am loo ciy tiit dama ne bu ñu nax sénégalais yi. parce que nag Ousmane Sonko yi mu wax ci mbir mi dafa bëri parce que da nga dégg mu wax ne 94 milliards mu xëy daane ne 46 milliards la ñu décaissé xam naa compte bancaire ba xam naa banque ba xam naa la ñu fay waaye ay la yéwén. foofu nag foofu nag bu fekkente ne ci réew mu normal lañ nekk waxuma sax waxi commission d'enquête parlementaire waaye ñi nga xam ne ñoo sasoo loolu mbaa ñu sas leen ko lu ci mel ni procureur fa la waroon nag euh, jëfandikoo yooye mu dégg ngir enquête euh, xam askan wi xam fu dëgg gi féete. waaw mais xam nga dégg nga ci ay plainte te le temps de la justice n'est pas le temps des politiques xam nga aussi il faut que nit ñi dal. ànd ak tey ah déet Babacar xam nga chaque jour nga gis justice. mais plainte bu am mais plainte bu amee plainte bi ci benn côté rek la jógee Ousmane Sonko moo dem. eggee mbir ma yoon waaye ki nga xam ne moom kay nee na procureur woo ma sax non non nee na procureur na ma woo attends attends dégg nga non attends procureur dégg nga dégg nga non xam nga dégg nga ku dem ba ne la procureur na ma woo diggante moom ak Mamour Diallo mhm. Mamour Diallo wax ne day porter plainte day waaye porter wul waaw non non non attends man xamuma ndax porter naa porter wul parce que ni am la lay wax na déggoo li ma la wax man wóoruma ndax porté na plainte dégg naa comme ni nga déggee mu ne day porté plainte Ousmane Sonko ci boppam dégg nga mu ne moom porté na plainte. procureur ci boppam dégg nañ ko waaw dégglu ma dégg nañ ko ñu gis ne Pastef def na une lettre de dénonciation près du procureur loolu ñun ñëpp gis nañ ko loolu aussi il faut que ça soit. non li gën a li gën a grave naan damay xaar assemblée pare seen liggéey. commission d' enquête parlementaire léegi ne commission d' enquête parlementaire Babacar bu wax commission d' nag non loi dafa am nu muy doxee wax naa la léegi ne la commission d' enquête parlementaire mënul liggéey ci dossier boo xam ne dafa nekk à la justice. loolu aussi faut que ça soit clair parce que yoon moom moo ko wax donc moi je pense que li gën a leer te wax ji mooy xam nga lan euh, sénégalais yi kenn mënatu leen ndax te nag aussi munoo tey nga jékki-jékki xëy suba teel accusé doomu aadama yi ne nag am na sàcc bu ñu am 14 milliards te ba muy wax moom nëbboon na sénégalais yi ne contracté na ak les héritiers ci ay dossier ci ci benn cabinet boo xamante ni mi ngi tudd Atlas yow yaa gis seetaan ñëpp seetaan ko ñu laaj Ousmane Sonko ne ko ndax am nga cabinet bu tudd Mercalex d'abord mu ne musuma am cabinet bu tudd Mercalex ñu ne ko sa cabinet nu mu tudd mu ne ah man de euh, d'ailleurs fàtte na nan nga amee cabinet ba pare di ko fàtte daan ne Atlas Pro te Atlas Pro amul cabinet bu tudd noonu Atlas la donc ce qui veut dire que moom ci boppam mi ngi doon nëbb sénégalais yi ne am na des intérêts dans le dossier des 94 milliards loolu après la ko sénégalais yi xam maintenant bi ñu demee ba gis lépp contrat yi nga contrat yi nga xam ne entre am na entre Mercalex ak Atlas ñu gis ne ñaari sociétés yi benn nit moo leen représenté muy Ismaïla Ba ñu gis même numéro téléphone yi parce que tey jii boo amee ay cabinet ay société déclaré ko ak registre de commerce dañuy gis éléments yi nga xamante ni moo ci am bi demee ba xam ne li mu doon wax lépp ay waxu caaxaan la te wax la joo xam ne amul benn firnde mu commencé na danne xaaral ma jéem a jouer à la victimisation pour jéem a manipuler sénégalais yi parce que depuis qu'il qu'il a commencé à faire la politique. li muy def mooy ah, jéem a manipuler sénégalais te Babacar li may wax ni euh. amul benn virgule. boo xamante ni mën nañ ko ci dinj parce que sénégalais yi ñu ngi fi woon démb ñu ngi fi tey ñu ngi fi waat suba. parce que lépp lu justement yooyu nga xam ne moo tax ngeen ni yee moom ñoom ngeen liggéeyal. Mhm. Euh, coow li euh, commission d' enquête parlementaire sax boo seetee ba ci biir dafay tardeel yëf yi justice mooy enquête kat bi gën a mag ci réew mi euh, lu ni toll. bu amee soxlawul woon sax xëy na commission d' enquête parlementaire di guddalu jël nañ dem réglé ko ci tribunal. xam nga nag def ay enquête am. xam nga nag Babacar Fall yow dafa mel ne yaay président de la république wala yaay régulateur Sénégal. no du ma la tontu loolu moom du ma la ci ton sax non fi mu toll nii xam nga yow sa xalaat nga wax. tontul ci li ma la laaj. waa déedéet non non parce que nga wax je pense que loolu sab xalaat la yow Babacar Fall am nga ci sañ-sañ waaye aussi réew mi am na nu muy doxee c'est pas parce que da ngay jug rek. def benn de parce que aussi munoo sos. sa sos wu ne weng ba pare nga ne tribunal ñi bokk ci yéen te ñu dénk ay mbir. ñun leen ni dañoo luubal ak ñoom seen ñu koy njot ci ñoom lu tax defu leen ci commission d'enquête lu tax jéemu leen koo seet. non attends Babacar lépp loo xam ne am na si ñoo xam sax léegi ay ministre lañ. noo déggoo li ma la lépp loo xam ne Sénégal yëkkati nañ ko fi ñu jàpp ne lii war na mën a indi commission d'enquête parlementaire ba mu ko euh, ba ba ba mu ba mu jotee def nañ ko. leneen loo xamante ni jàpp nañ ne war nañ ci ibbi commission d'enquête parlementaire dinañ ko def parce que aussi commission d'enquête parlementaire munoo xëy rek gàddu sa boobu rëy nga ne damay tijji commission d'enquête parlementaire la xew kudd lu tax nga suuleen ca déggul ma parce que li xew kudd amul loo xamante ni am nañ ay éléments qui nous permettent d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire ça aussi il faut que ça soit clair oh il faut mën a Georges ñu mën a il hmm? faut que aussi ñu mën a def différence entre li nga xamante ni dinañ ko wax ci presse bi ak des faits vérifiables yoo xamante ne am nañ ci ay éléments yoo xam ne nañu permettre ñu ubbi une commission d'enquête parlementaire mais c'est que c'est que diligence parce que ñun aussi je pense que bi jëm ci wàllu milliards boobu lañ nemmeekuwul ci yeneen euh, commission d'enquête parlementaire yi nga xamante ne am na ay députés yi nga xamante ne sakku nañ ko waaw euh, ma benn député bi sàkku na ko wala ñaari député yi sàkk nañ ko loolu mën na nekk mais li ma la mën a xamal mooy Georges yow ci sa bopp journaliste nga boo xëyee suba ba ngoon jot da ngeen di def journal am ay éléments yoo xamante ni dinañ ko jox des fois nit ñëw ba ci yéen wax leen ne leen nangam nangam ngeen juger nécessaire que lii information la boo xamante ni jarul wax parce que amul benn euh, mbir boo xamante ni war na intéressé sénégalais. waaye fii donc loolu waa déglu ma non non wax ne am na ku ñëw ci yéen waaye yéen seen biir li ma la wax. yéen ci seen bopp da ngeen di am réunion de rédaction xool li nga xamante ni war ko génne wala te loolu kenn du leen rax yéen yéen xool est que information bi am na portée publique wala am na loo xamante ni suñ ko waxee dina jariñ askan wi ngeen. lu méngalable. cest xam nga wax li may wax c'est très clair li ñu tudd ci ay lëxoor ci ñu fareg yéen. te jéem leen ko gëstu enquête leen ko loolu lañ wax. Babacar li ñu tudd ak li am ça fait parce que loo gis. tubaab li ma ci xam moom mooy comme ni nga xamee yow li nekk ci sa biir man éléments yi ñu may jox pour ma apprécier ko en tant que parlementaire man maa xam exactement li ci jar ibbi commission d'enquête parlementaire oui ou no parce que li ma lay wax ni Babacar munoo ko dindi li may méngale c'est méngalable parce que xam nga lu tax yow mi nga xam ne yaay taskatu xabaar yaa xam xabaar ba nga xam ne am na portée publique pour nga porter ko à la population man en tant que parlementaire man maa am mandat boo xamante ne ni askan wi jox nañ ma ko pour ma mën a apprécier la nga xamante ne ni mën naa ko ibbi commission d'enquête parlementaire waa wala déet parce que loi bu ñu ko indee assemblée nationale yow ma koy woote yow député la ñu may nga am saytu boo xamante ni di nga ko ci def pour xool exactement li nga xamante ni jàpp nga ne méngoo naag bëgg-bëgg askan wi waa wala déet loolu mooy li nga xamante ni moo am bu ñu nekk di naxante parce que nag aussi sénégalais yi ay borom xel lañ sénégalais yi ay nit la ñoo xam ne li ñu leen di wax dañu koy dégg donc am na loo xamante ni mën nañ ko waxtu wi dem na Abdou Mbow jërëjëf. waaw jërëjëf vice président assemblée nationale euh, porte parole adjoint APR euh, di parti Macky Sall jaajëf Georges Dethie Diop jaa ngeen jëf mbokk yi yéen doog jàmm.